mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tey ngi fii ci kër Jibril Sall mm-hmm. di jàmbaar di kenn ci askan wi nga xamante ni tabaarakallaahu mooy askanu Faramareen tabaarakalla xam Jibril Sall xam ko ci keppaaru ki nga xamante ni tabaarakallaahu mooy Faramareen bu mag boobu di alaaji Waali Sekk mu baax mi tey nag yàlla dogal mu am tudd tubaarkalla am tout tànk fas yéene koo tudd waaye nag ci teewaayu Serigne Abo moom Serigne Mourtada Juma moom Serigne Fall. Mhm. waaye ci teewaayu Serigne sëriñ Modou Mbakke moom Serigne Jeddaali moom Serigne Fall. ñu ngi nii toog. Mhm. fa tabaarakallaahu ñoo fas yéene tudd ki nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom mooy tout tànk bi nga xamante ni moom moo nu gane may déglu ndigal nag ci ki nga xamante ni mooy Serigne Jibril Sall mi toog. sëriñ baa ngi nii toog moo ma jox ndigal ni ma sëriñ Modou moom sëriñ Jeddaali moom sëriñ Fallu moom laa jox ndigal mooy tudd tutak waaye ci teewaayu imaam Jibril Sall imaam imaam Cissé ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ngi nii toog imaamu gox bi ñëpp ak ak Cheikh Abdoul Akir kenn koo xamante jàmbaar di nit koo xamante ni ku yàlla baax waaye nag di taalibe Cheikh Mouhamadul Muntaxa kooku mooy suñu Akim Fall di nit ku baax ak kim ne ah kii nee na ah mi ngi nuyu bu baax yaayam soxna Awa Samb di ko beral nuyoo di ko sant di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam ndax day day loo xamante ni fa tabaarakallaa da ko féete di ko yaay féete taxaw ko ba àdduna bi yëpp xam ko muy féeteem kon mi ngi koy nuyu di ko sant di ko ziar nee na mi ngi nuyu bu baax magam jii toog di soxna jaara nee na sama yaay Ndey Mari sama mag yi ñoom ñëpp sama bàjjen yi ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ngi toog kon dañuy daal di tënk rek ndax comme te danoon nekk ah, ci koor Amady Badiane moom it tabaarakallaahu Père Zora Mansour Mbaye ñoom ñëpp Mohamed ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu ku leen juum dañuy tënk mi na waaj ndax bu joxee ndigal ci kàddu na waaj Sëriñ Moodu bayla ñu tudd après ñu waaye moom Sëriñ Jëddaali moom Sëriñ mooy tudd tu tànk kon ñu teewlu na ñëpp teewlu. ki nekk ci gàtt bi na waaj. ñu ngi tudd tudd mi. nee na waaj ba ñàtt ba ba ba nga xam ne bu dee bismillah rek. mu dawal. na waaj ñett xar mi tëral. tey aw sàmm bàjjenu liir bi. waaw nee na sëriñ bi mi ngi ña mi ngi laaj ba xam noppi na ndax tëral na xar yi ba noppi waaw nee noppi na mun na bisimilah rek jërëjëf Baye kàddu gi am na solo mhm. kon ñu teewlu rek ñu ngi ci mi ñu ngi nuyu bu baax man Mansour Mbaye sunu mag sunu xarit di nit ku yàlla baaxal mooy moo ko lool am personnalité fii ñu taxaw moom rek lañ fi taxawal nee na bisimilah bisimilah bay laa bisimilah waaye war naa a nekk de. alaay sëñ bi sëñ ñu teewlu rek ñu ngi ci mi. ab mhm. di leen koy doy. di leen insisté yàlla na yàlla doon di ah, ah, mi Amari Badiane am nga problème doom ju doom ju góor la mhm. baayam tudde na ko alaaji waali Seck di Ibrahima Ibrahima Seck alaaji Ibrahima waali Seck ah. moom nga ah, tudde doom loolu nag du ni lu tax tabaarakallaahu Jibril Sall boo nee dëf ni alaaji waali Seck wàcc nga ndax ku la xam xam sa diggante ak waali balaa ko Seck faramarin bu mag boobu ñuy ñaan yàlla yàlla duñu am barke waaye nag ci teewaayu sëriñ Moodu moom sëriñ Yeddaal yi moom sëriñ Fall waaye ci teewaayu sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadul Moutada Juma moom sëriñ Fall kon saf na sàppal sëriñ Fall hmm. aw bu sëñ rew bi càm ñëw mërima ko kon ñu am mbégte rek ak kontaan sëriñ Abo mii Touba la bàyyi ko am ndigal ci way juróom bu baax bu Cheikh Mouhamadul Moutada Juma daal ni ko demal nga tuddal ki nga xamante ni mooy Jibril Sall doomam loolu nag bu amee fa tabaarakallaahu war nañ koo wax ndax si jot amul sëriñ Abo bu jógee Touba ànd ak sëriñ Modou ñëw tuddal Jibril Sall mii doomam tudd ko Waly Seck loolu mbégte la ko kon nag mu ñëw ah, kon nag loo nekk ci presse bi. waaw dama yi incha allah dana ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo ko war a sunu mag dafa toog nii di Mansour Mbaye. moom la lu bëgg a dox kooku diggante moom dafa yàgg. te alxuraan dañuy wax awfu bil ahdi innal ahdal kaana masuulan. kóllëre sunu borom da koy lay. te Jibril lii mu def ci kóllëre rek la ko la ko laal. képp ku mu amal dëgg wóllëre. fa tabaarakallaahu jaxasoo ak yow ak moom. moo tax tudde na la doom kon tey jii tuddee Waly Balago Seck doom fa tabaarakallaahu kenn du dugulee ñu am mbégte lool ak kontaan te bàjjen yi bég lool kontaan ndax fifty ku ko xam xam nit ku baax la ku xolam sell la yàlla dafa wax ci alxuraan ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man bi qalbin saliim xolam dafa sell muy nit akkan di jullit akkan di koo xamante ni siyaare siyaare dina Muhammadu Rasulillah waaye fu fu waxtu julli jote li muy def da koy bàyyi def jàpp ba sell julli nee naa yow tubarkalla jikkoy sang nga yor jikkoy wàlliyu nga yor ndax sa xol dafa rafet nga yéene ñëpp jàmm man nag moo ma ci bool yi man laay bëggal ma bopp teel maa ma damaa taxaw ma kon bu ma taxawee fii loolu war naa koo seel ndax ko toog dalee nit te nekk ma kàddu gi duñ ko guddal jox ko suñu mag suñu ay communicateur la te suñuy mag danoo toog di mm-hmm. suñuy bàyyi njiitu ñu li nga ni mooy milieu bi kon li sama bàyyi li faral di wax danaan kutu bi ci bokkutaanu gëlëm bi rattkat bi moo ko xam moom moo fay ne mhm. te kii ku ko xam-xam digganteem waaye balaa ko sekk mi nga xamante ni moom lañ tudda tey kon doom ji kon tey du jox ko mu wax bu waxee ba noppi keneen ku ci am kàddu di orateur ñu jox ko mu wax fa tabaarakallaa ñu ngi nuyu bu baax ki nga xamante ni ñooy imam Cissé di leen dalal jàmm ñoom tamit tabaarakallaa ñoom ñëpp ñëw nañ kon sëriñ bi ñu ñu jofe ndigal lool bu ñu paree jox ñu njëkk loolu. sëñ bi nee na bisimilah. waaw ndax Mara bu bu waxee rek tëj na. waaw kon ñu jox ko waaw kon ñu jox ko. bu nu jërëjëf jërëjëf Mbaye dañuy jël kaddu gi rek. jox ko sunu mag Mamadou Mansour Mbaye kon bisimilah. Mbaye li nga def baax am na solo. ah Amady Badiane. kaay kaay. Ah, may leen may leen ah, may leen ëmmati mu jàll. may leen ko mu ñëw ah, maa ko yar. kooku maa ko yar dama ne ajar ajar. léegi léegi léegi. bu dul woon ñu tuddee doom ji ah. waali mun naa may jël kàddu ndax moom mi defara rafetal te li mu wax lu ma teg dara li tax man nangu kàddu gi mhm. waali mi ñu tuddee doom jee tax benn maa ngi nuyu sëriñ bi toog Mbàkke Bàll waajuróom bu teddoo fekk naa ko Touba ànd ak Waly Seck muy ku baax laa juma baax lool yiw lool mhm. fes dell yaru lool mhm. yàlla sunu borom yokk fanam mu gudd lool jërëjëf Mbàkke du imaam bi dëkk ci koñ bi du nuy ñëpp nag maire Fall mii toog Baye Fall mooy toog toogaay Kiné Diouf ci jotaay bi tey ñu jàpp ne Kiné Diouf a toog beneen bi des fifty mii di tudd doomam tey day liggéey ak Waly yéene ko boppam bëgg ko lool suñu waroon dogal sunu biir ma ñëw suma digganteek moom ñëw ma ngir waali de daf maa yëgal ma ñëw diggante suma diggante moom kon bu tuddee doom ji waali war na warul ndax Amady Badiane bi tax ma woo ko dama ne wala Amady Badiane moo fi coon sekk fii mu toog nii ndax dama fekkee démb tey doon a ñëw kon Amady jërëjëf. kon a ma tuddee Wally Seck doom ne dañuy daaw la wala wala matagul daaw laa ne doom yi turandoo yi dinañ bëri ndax Wally moo toll noonu mariasin yàlla na yàlla may ko gudd fan ak wér te lafal ko cat su mu bëgg a yegg yàlla na fa romb di nuyu ñi fi toog ñëpp nag di wax ne fifty jërëjëf Sall Jibril jërëjëf yàlla nga ko yónni yàlla nañu jariñ weeru koor lañu ñu ne duñu guddal ndax li war a rafet rafet na ba pare képp ku fi ñëw yal na la yàlla may gudd fan ak wér lafal la cat tànk yi nga ñëwee ak booy dellu yëpp yàlla nekk yiw gërëm nañu sant nañu bi may ñëw njottoon naa ko ci ko xam diggante moom ak waali loolu laa wax de ko xam diggante jibril ak waali njottoon naa ne man doom ji waali lañ koy tuddee li nga ci bëgg nag yàlla yàlla defal nga am kawe sa njort di nuyuwaat ñi fi teew ñëpp kilifa ku fi teew ma gis la tey te xamante wuñu maa ngi lay jox sama wàccuwaay di la gërëm di sant waaye nag sama doomu nijaay la coono nag sama yaay bokk ndey baay muy ku baax nag képp ku tuddee Wally Seck doom ñu ngi ko defal bàyyiwul ay mbokkam bàyyiwul néegu ndeyam bàyyiwul néegu baayam Amady jërëjëf Badiane sa akrowaali sa toogaay bi nee naa la mooy Thione Seck mooy Ramdaan képp ku fi ñëw tey sa wéeruwaay lay ne kon jërëjëf bajaan ñu ngi gërëm ñëpp di sant soxna su baax si nga xam ne mooy soxna Jibril di ñaan yàlla yàlla ko yàlla mooy gudd fan ak wér ndax mun kat la ndax kuy liggéey waali ku ne doo am jot kon nag moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ay waajuru Jibril mm-hmm. ndax réeroowul la ay mbokkam mm-hmm. ndax lu mu gàtt-gàtt boo amee tànk dina laaj c'est normal ko mm-hmm. tuddee doom ji mënoon mm-hmm. na nangam ñu ne ko déet waaye ba mu nee nangam dañu ànd ak moom ci loola kon yàlla ñu yàlla may gudd fan ak ma eggee léegi si sàkk borom xam naa ne waale day nelaw waaye dinaa woo soxna ay dara na ko amati ngeen ndam ndax amati ngeen turandoo kon nag yàlla ñu yàlla doolu sutura ñu ñaan imam bi fi ne yàlla yàlla fan ah. ak wér allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf jëf tabarakallah loolu rafet na dox ma rajo bi amari amari amari jox la non non non euh ki wax na lépp ah. billahi wax na lépp ma sha Allah wax na lépp wax na lépp ma sha Allah